ñu jublu nag si li nga xamante ne comme sànq ni ma ko waxee woon parce que yaakaar naa ne temps yi Singleton en tant que porteur de voix rey yi na temps yi passé nga dégg foo tourné dégg rey rey rey rey rey rey ba sax par la suite sa sa xarit yaakaar na ay zaba la amoon nga ay relation avant tout ma ñëw foofu waaw Aziz Dabala di ko mooy loolu di ko masawu Sénégal yëpp xam nga di leen ko jaale bu baax a baax su ma xarit la woon wax dëgg yàlla sama gaan lan koo xam ne boo ko hmm. ko sama boo ko waa sa juddoo ko après moom daf lay rappelé quoi doon ngeen déggante waaw doon nañ <laughs> xarit la quoi sama xarit la moom sama xarit la hmm. sama déggante normal doon déggante maa ma anniversaire wala dara sax moo woo ko mu def vidéo envoyé ma ko quoi hmm. vraiment na Nabou sax sama jigéen la sama xarit la oui tey jii genre dinaa ñëw si Nabou ah après Nabou Nabou bi nga bi nga toogee ñu tàggee la boog wala nga boog nga gis statut comme ni ko gars yi gisee Aziz Dabala dañ ko crime naka la la def. non man ay xaaju guddi laa toog di teel sama téléphone rek ma dugg ma gis affiche bi mais après gëw ko quoi mais ma dugg isate ma gis affaire di wàcc mais guddi googu xaw ma nu ma fanaanu sama yaram tàng jër gaan xam nga mhm. affaire bi daf ma déception daal màggal gi yëpp daf ma laal munu ma lekk mu nekk sama xel travail ndax tellement dama ko foogul woon quoi te man affaire bi dafa ñaaw trop trop trop trop trop trop trop te bëgg naa gaa yi jël si matukaay bu baax a baax tey mu leer ci bopp sénégalais yi na la demee quoi dafa war a leer ci bopp sénégalais yi carrément mhm. a leer ndax loolu ne da nga nekk sa buntu am nday am bàyyi tàmbale investir sa àdduna jékki-jékki rek ñu ray la nii mu bëgg nii loolu tamit dafa métti trop quoi. Mm-hmm. oui tey jii comme ni nga waxee woon xam nga aussi euh, Nabou Leye mm. bi nga toogee tam nga dégg ñu ko siy tudd di ko si laaxa biir ba ba tey jii ñu ngi ko aussi loxo yoon bi nga yëgee loolu tam naka waaw loolu bu fekkee ne Nabou Leye moo ko def moom ah, yàq na deru jigéen xam nga yàq na réputation jigéen xam nga bu fekkee moo def loolu laa la wax de bu fekkee moo ko def kooku moom sa waay wax dëgg yàlla koñam sa jur te dëkk ko na nga xam ne kii yàq na der waa koñam wax dëgg yàlla jigéen moom xama lu ñu xamoon si moom xama mooy jigéen dafa war a nekk jàmbaar ndax suñu yaay ñun loolu lañ gis si ñoom quoi dañuy boole xama fuñ fekk jigéen dafay nekk di sëy mu ñuy jéeg moom daal rafetul daal quoi jigéen xaw ko ci ay wotoog ay ay ay ay ay dafa teg dilak ay ay dafa bokk ci mafia bi yooyu ñun jigéen seen duñu wóolu ci moom jigéen exemple la dafa war a am ay doom am lu ne loolu faaw ñu koy bàyyi xel el moom mais am na loo xam ne daal doomu aadama da war a defar sa vie defar sa dund xam ne jigéen daal mooy suñu yaay jigéen mbaa xam ne jigéen mën na jur wàll yu ba tey wàll yu jëwu fi de mais li problème bi jigéen ñi ñoo defarul seen dund gu duñ toll nii oui mais Nabou Nabou comme comme comme naan ma am naa oto xam di ma investir di wax yeneen ma xam ne kii moo tax bi ma ko déggee loolu mit na ma ko doon xalaat tàmbale am yeneen projet naan nii laay def damay publicité nangam tàmbale àdduna am jeko ñu dugg dégg ko si lii non loolu daf may jaaxal quoi man de wax dëgg yàlla xamaguma fu loxo fu ne di mu jéggi bëtam mais ba nii moom déception la ma def moom hmm. su fekkee am na lu ma bett la moom nit nit a lëndëm daal laay wax ko man hmm. waaw. tey ndeysaan moo amoon doom ba xaar nga si doomam tout ça mooy loolu parce que gis nañ moom doom hmm. nga jég saa rek un jour ñu jàpp yaayam tout ça yóbbu ko. waaw loolu la moo tax mooy la gis nga nit boo xasee ba am yenn sax da nga ko war a daw dafa métti trop waaw mais doomam tamit xam nga ñu koy jege ñoo koy comprendre rek xam nga di ko indiwaat xam nga yoo yooyu xam ne yàlla suñu borom nag xam nga lu mu dogal ci doomu aadama rek dafa neex xam nga ndax inna akramakum indallaahi atqaakum inna allaaha aliimun xabiir hmm. waaw tedd ngay jikko yi ku gën def rek moo ma gën a jege man yàlla ku gën a rafet jikko si yéen rek moo ma gën a jege quoi mhm. waaw mais léegi nag jikko yu rafet moo bëreetul xol bu rafet bëreetul yéenante bëreetul comprendre ma la mhm. waaw xaafiri zen bi wa xaafiri taw bi seen ni xaab si taw bi laa ilaha wa ilahi masir mhm. xam nga àdduna li gars yi dañuy daw xirtal àdduna ba daf leen di jaral quoi doo comprendre ni muy demee daal waaw ba tey eh, gars yu yàq dell ñoo ñu bëri ñoo ngi naan bon di di di maanaam di dugal si bokkul fettkat yi nangam nangam ak ba bëri sax di di di dugal ay borom ñaari tur yeeg yooyu noonu tey bu nga yëgee loolu naka la météo loolu na ma ndax doomu aadama nit bu dee war nga mën a wax si moom lu rafet quoi hmm. waroo am dara lu ñaaw loo war a mën a teg si moom quoi hmm. comprendre ndax dañ la nit bu dee soo mënta seede ci moom lu rafet na nga noppi hmm. ndax lépp loo wax rek malaaka dañ koy bind te kenn ku ne war nga dimbali nit ki dee nga defal ko yërmande ñaanal ko ci yàlla ak ko quoi yàlla benn bàkkaar rek la du jéggale mooy bokkaale ak nga ñàkk a dee si njullit comprendre nga yooyu kon faaw ñu koy bàyyi xel mais na Elmo nañu bàyyi nit ñi nit ñi tey yu ñaaw yi ñu def 5 tonnes di dund dund deere nga bëgg tekki deram lu ñaaw xam ne ku dee mënatul boppam dara comprendre loolu daal nañ ko bàyyi xel bu baax léegi 5 tonnes day dee jekki-jekki ñu génn ay vidéo am naan booy bii mënoon a fen dafa mën a def loolu nañ ko bàyyi yooyu baaxul Mm-hmm. lan nga yaakaar moom mooy solution bi comme rey yi bari yi tout ça si dëkk bi lan nga yaakaar moom mooy solution bi. man de suñ ma laajoon man avi wala ñu fal fal ma comme affaire kii ki mm-hmm. jiite kii. Mm-hmm. barke alxuraanu karim ku rey nit. damay woo média bi ci àdduna bépp ñu ñëw ma tàggale bopp beeg baat bi jël bopp bi ñëw ba ci grande mosquée bi nekk Sandaga grande wala fu xam njool mooy njoo kebe pare bi jël bopp a def fa keneen reyaat ma jël bopp waaja def ko ku romb kii xëy suba ngoon di ko gis ma dagg sa benn loxo nga sàccaat ma dagg sa loxo sa tànk càmmoñ jooy la ko yow d'accord nga kon peine de mort waa peine non rey gi moo d'accord rey gi laa d'accord man rey gi ah. rey gi rendi peine de mort ngay dund ñu la jox ngay lekk ngay naan dañ laa war a rey tàggale sa bopp ak sa baat dootoo xam li doo exiger waaw peine de mort tamit. non peine de mort neex na ndax da ngay lekk da naan loolu bu neexut dama ne dañ laa war a rey xattit. maanaam comme lu lislaam digle lu yàlla digle ku rey ñu rey la. Ah, ku sàcc ñu dagg sa loxo. Ah, ku sàcc ñu dagg sa loxo ku jam ñu jam la jor mm. soo sàccaar ñu dagg sa tànkub càmmoñ. Mm. loolu lislaam digle. Mm. Ah. bu dee téeméer yi nag moom xam naa ne moom dina bëri ñu koy <laughs> bul dugg foofu. <laughs> Ah, kon jeex na waaw ah, kon nice kon. lan <laughs> ngay la la ngay tàggoo. waaw di sant ñëpp rek di sant géej waaye xam di sant àdduna bu baax a baax yow di la sant bu baax a baax a baax di wax daal xam nga vraiment. combat Siteu la kii comme ni nga ko waxee ñu daal si boo xam bu doy waar. wax waxoon naa la wax ne. man man sëñ ma xam xam nga dëgg sax boo euh, mais bi passe da defoon interview ñu naan gars yi naan ñaar nga def. <laughs> non xam nga man dama ne la góor gi wallaahi la nga ku dee ak sa baam bu ma woon tey ne ma 5 tonnes suba xeel nga attaqué Bassirou Diomaye Faye suba ma xëy mook Sonko ma yekk loolu mel ni xemee duma ci regal ndax damay xam ne jàmm ma ci fekk barka alxuraanu karim <laughs> billaay wa taala man ku ma ko diw tëkk na ma mu ne ma demal toog jàpp sa njàmbur barke alxuraanu karim hmm. billaay wallaahi amul soxla su ko ko te hmm. ko amul soxla su ma ko yóbbul waaye mbay jaay a ngi moo gënoon a métti la mbay jaay dafa demoon ba yàqu ñëw gaan mooy loolu boobu moom mu géré ko isan mu lépp hmm. xam nga vraiment yooyu dafa mat a bàyyi xel góor gi moom saay foo ko takk kooku dama na la elmo su ne moon suba suba suba suba attaqué le progrès ma xëy attaqué ko du ma ci tirisee ndax ki la wan nga gis wanaan la nga gis kooku sañ nga teg sa bakkan waxuma ay waxi làmb mais am na yeneen yu bari yoo xam ne daf ma koy wax ma ci teg sama bët ak yu bari yoo xam ne day bëgg a ñëw si man mu ne ma dof ah? du kenn di laa ko boole ay problème këyit du kenn di laa ko boole problème doom du yoo xam ne du mënuma lim lépp quoi ak njàmbaaram foo ko takk pa damaa woon ma gis nitu yàlla ayul dara man maay fayeeku damay liggéey taais moonin numéro askan bi ah <laughs> waa jeex na comme ni koy n'est-ce ngay tàggoo waaw tàggoo ñëpp rek waaw di wax sant ñëpp daal xam képp ko soxla 5 tonnes daal woo ma 76 635 10 78 numéro askan maa ngi sant sama premier sponsor na Guèye Pro Business xam nga vraiment suñ dem Dubaay gi si loxoom la jaar mooy Binta mooy waa Guèye Pro Business ñu ngi leen sant bu baax nekk si da Aliou Sow di jàll waa wàllu électronique xam nga ak bi nekk comprendre nga en fait isaan njaareem xam nga 77 627 25 39 mooy numéro Guèye Pro Business wàllu électronique incha allahu rabi xam naa si mois bi danañ dem Dubaay mën a yow ak Lac de Guiers 2 mm-hmm. ñu dem nga couvrir événement bi. rey suñu noon yi dimbale waxkat yi. Mm-hmm. gis naa gars bu fi ay nit yóbbu leen Dubaay ñun ñun bu ñu demee Dubaay duñ bokk seen ak suñu dem du bokk ndax ñun ay star lañ. boos xalifa la ah, laal ñun. kenn duñu ting dañu kidnappé duñu def la interview dañuy dem Dubaay topp ci mbedd yi di photo gaay te du yoon ci man dara kenn yóbbul ren ren kenn yóbbul na ko màggal ñun yóbbu nañ na ko màggal <laughs> jaajëf jaajëf jaajëf tee jaajëf tee